je me dis que ne je man yeewooguma de ci gént laa nekk. tu n'as pas encore fini de me yow defe naa ne rey ma nga bëgg benn yoon non bu sa bàyyi juddoo doon raté yow nga war a mën a jéem a am jom am ambition des projets d'avenir rien amoo kër sax xale bu toll ni yow juddu échoué comme ton père man à la longue je me suis dit que sa papa bañu la man la iñaane ndax dafa bëgg nga mel ni moom moom mi dajale ay jabaram te mënul leen dara yow tu es en train de suivre c'est pas pire même tu en train de faire pire nga dajale ay jabar te juddoo ko mel ni ku nekk hippodrome Longchamp yaa ngi dajale say fas ñuy course yaa ñàkk jom yaa ñàkk ambition dootuma ci wax nag dama lay bàyyi di la seetaan xam nga daj seetaan a ci dàq ce sera à tes risques et périls gis nga lu lay dal fexeel bu bul sëgg di jooy bu ëllëgee def nga li ngay def bravo j'applaudis des deux mains waaye dinga nga toog matt say loxo jooy fu kenn newul bu keroog gi ce sera trop tard yow non man yow lu ma la bëgg a wax dama koy xeeb bu ma la mënoon a wannaat bañ la juraat sax dinaa ko def pauvre de toi. li nga wax naa li nga taxaw ni nag yaay récité ko teg ko sama dal kenn nit laa ko mën a may ci kaw suuf kenn mu wax duma ci teg dara te par la grâce de Dieu ki ma ko may moo ma ko wax muy sama yaay kii su ma ko sama morom waxoon dina demee neneen su ma ko beneen kilifa waxoon boo xamante ni ruusuma ko dina demee neneen mais li nga wax yëpp nangul naa la ko je sais nga mer mais li nga teg sama der yëpp yaay nga baal ma mais du lépp li nga wax moo ne ci man Je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un jockey pour être dans un hippodrome Longchamp. Mais grave. yaay dafa am décision bu ma jëloon et j'ai été catégorique mais man nit laa damay bëgg damay bañ dama naan waaw ni déet parce que je suis humain je suis pas parfait et je suis loin de la perfection d'ailleurs yaay li am ni yaa gën a xam ne neexuma bu dee yaa ma jur xam nga ne na ci man xam nga ni umu bi duggaat ci sama sëy man ak moom neexuma tey neexuma suba ah d'accord mais nag yaay kilifa moo jox combien de fois yaay yaa ak sama papa ngeen am ay problème ci samay nopp jéggal ma de parce que waruma wax sax wax yooyu ma taxaw la yaay ñun ngeen kër yi buñ demee man ma yor la sama papa mi yor la nga taxaw ni da ngay fay danga nga ci taxaw ma ànd ci ak yow et combien de fois encore nga am problème ak sama ma fexe leen jubóole nga bañ seen bi woola nga ñëw. doo pépé moom. c' pas pareil c' est pas pareil. nous sommes plus au dix-huitième siècle. li ngay wax lépp c' est un fallacieux prétexte. non tu n'as le même siècle je suis désolé du dañoo nekk ci société boo xamante ni dafa am ay régulateurs sociaux c'est pas seulement dans les ménages c'est pas seulement dans les entreprises même dans le cadre politique combien de fois ay leaders politique yu bokkul fa ñu fa ñu féete di xeexoo di rayante di taal dëkk bi dëkk bi tàkk ba nit ñi di ko jëkk ay kilifa wax ñëpp dem toog gis nga fépp fu amul kàddu kilifa dëgg du fa sax jàmm du fa am te kenn du xam fooy féete nga yaay kàddu kilifa googu laa déglu tey sëñ bi ma woo man xam naa ne woowuma pour intérêt ndax xam naa mooy kan ndax nit ki nag fi ko yàlla teg jéem a teg ko foofu te ki ma jox ndigal am na fu ko yàlla teg te loolu jarul sax am yenn pouvoir yi pour la savoir mu woo ma man une personne ordinaire comme tout le monde woo ma immiscé wu sama mariage sama vie pour être beaucoup plus vaste beaucoup plus clair mu jëlaatal sa soxna waxuma ko de deful ni sama papa defoon de ñu neexal ko mu dem takk sëy déedéet moo xam nga lu ma ci tegal pare naa pour changer la chambre à coucher bu dee sa kër gi ngay wut mën naa la cee jàppale moom mii umu mën naa la dimbali si jàppale la nga gën koo yor mu ne ko baax na sëñ bi li nga wax dinaa ko def te bi may woo fekk na le vin était déjà tiré il faut le boire parce que may na ba pare lii am na yaay am na ba pare am na ba pare mënuma ci dara je n'ai qu'à accepter et déjà accepté ce que j'attends de toi c'est un foofu constant, mais aussi des conseils d'une maman à son fils qui vient de s'engouffrer sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a jamais maîtrisé et qu'il n'a d'ailleurs jamais voulu. C'est être polygame. Tu peux avoir des volontés d'être un monogame dans l'âme, alors que dans les faits, c'est autre chose. L'histoire me rattrape. Chacun a son destin. Maintenant, il y aura un volant qui la voiture de mon destin. quelquefois la fatalité ça va sur toi c'est ça en fait. de toute façon li am am na ba pare kilifa wax na def na mënuma ci dara ndax ni mu la yilifee noonu la ma yilifee waaye gis nga Amina mii nga xam ne sama darit la lu la wax ngeen ko ci kenn mënul wax ba ma jàllax ko te dinaa ko jàppale ba mu xam ne jàppale naa ko. Amina la ak moom aussi comprendre la situation. mais moom bu mu fàttali kilifa moo ko fi dajoon ci loo xamante ne neexuma woon te nangu nañ ko mais waxal ak dans dans un gouffre boo xam ne comme sax may def. Amina Amina yow laay waxal li ma la xamee woon laa lion bi ma la xamee woon continuer ci loolu bu la dara dara fëkk xam nga maa ngi yow ay xarit lañ. nee naa la temps yi maa lay course maa yor say cumbukaay kon dee ma déggal dee ma déggal wax naa la ko nag buu bu ko balaame deful waxut lii moom maa la ko mën a assuré man man maa la mën a juré ni buu yëgul tenu nit nag amul lu kilifaam te sëriñam mooy suñu kilifa ñun ñëpp ba ci baayam gi bu woon baayam tey jii ne ko maa la defal lii may naa la diw may naa la ñun ñii duñ ci wax dañuy toog ne nii di ko seetaan bu nag sëriñ bee ko woone ne ko delloo naa la ummi bu la ci dara jaaxal bu mu bu la tiital te bu si découragé temps yi noo découragé ni bàyyi sa kanam gi mu wéet nii tristesse bi pour la la génnal ci lii xappil béggeel fa laaleel kër gi bu ñu la xamal dara bu ñu xam ne sax lii dalaa ñuluk balay sóor léegi yow Ndeye nga bëgg nga dal may nekk di fecc di tàccoog di way waxuma la lool de waxuma la nga xappi ni nga daan fëlaale na ko yokk sa sañsa nga yokk ko di faaru ba doo mën a gestu rouge fu mu tëlee nga kii maa ngi ak vingt yu rouge naa la ci may ñaar ngay tëlal ci kër gi di def lu la saf bum la tiital kat lan mooy wujju yow yaa war a tiit. bëgg ngaa dégg dëgg. waaw man instant bi damaa découragé si seen. moom laa la wax nag waroo euh, découragé nga woo naa sama cousine mu ñëw ndey non il faut am ku ma waxtaan. renfort non non waa parce que. man doy ma la renfort non man que ni kër gi man je suis délaissée quoi man dañ ñëpp dañ ma jël paquet. te pas délaissée de ah, non non non pas du tout loolu moom du ma ko du ma ko nangu délaissé woo yaa bëgg a délaissé sa bopp même buñ la délaissé bul délaissé wu pour lan luy délaissé sax. gis nga man loolu dama ko waxul mais Ndeye situation bi man mënatuma ko bu fekkee ni dëgg rek a neex yàlla. Mm. te bàyyi leen di ma wax naan ma sëriñ bi gis nga yenn sëriñ santul dara. Ah, bul wax man bu xam naa ko bu baax sëriñ moom bu ko kenn laal moom wax dëgg yàlla kooku moom bëgguma sax nga xam naa li ma la wax man am naa si lu leer. kon yow da nga d'accord ci affaire bi. d'accord naa si mais waxi kilifa waa la sant toogal sa toogaay man dinaa la gën a kut lépp lu ma la doon def dinaa ko duble ñu dem jëndi dinaa la yóbbu ci ay boutique yu baax ngay jënd di defaru sa teen na gën a weex bëgguma lii lan la li taay lan la France nabe bu toll ni yow ngay ñëw di triste pour lan defal ba mu baax la kenn trisal. naa famille bi ku fi nekk il faut que nga am force dëgg pour mën a nekk ci famille bi. Ah, mais nii la c'est ça non seen famille bi moom boo bëggee dégg-dëgg moom da ngeen a doy waar. non c'est c'est tout famille tout boo mënti dem Sénégal nii la fay demee yow kañ li la doon arrangé mooy nga toogoon France mais comme que yaa bëgg a sëy jaamu yàlla da ngay reyante de ci compétition fit daal moom da nga ko téye am sa fit. loolu rek laa lay déggal. dégg naa nga sonn. da sonn moom ça se voit yow daal li ma la wax rek après ñu dem ci boutique yi. ñu dem ci man bu dee ay arsenal ak astuce yooyu na sëkk franchement doy na yi ma joxoon am na yoo xamante ni ba léegi utiliser gu ma. lu tax bu mérité loolu. désormais bu ma dee tëdd. fiso laay sol. fiso waaw teg ci sama jiin. bu jëree sax ma teg si jóg. yow yaa gën yow yaa indil gën a indil méttit. bu moom ma jaralatul dara. non non bul wax loolu wuy ma. dañuy waxtaan ma ngay wax ak yow gis nga Mabel jigéen du mel noonu sa jëkkër ay tëj ay ay ay fiso ak solal kii machine à laver yoonam nekku ci boo ko solalee tamit bu xëyee day dem gis keneen kooku waddul ko sëru pellal mu nekkal ka ceeg moom li la war sa jëkkër def ko bu la benn problème tax ngay def noon naan da ngay denc wax naa la ko nag sinon rek day dangay wàññi gel gi de man duma la ko dëgg ba man yow gis nga man rek exemple laa gis nga sa kii li ma ko def sa goro gis nga ni ma ko def du dara ump la ci melal noonu bu la ummi mi découragé loolu bu doon Miss Inde sax nga ne waaw waaye ummi mi découragé loolu kenn. man ummi man frégew ma ñeente mais man. façon bi nga xamante ni bu daf ko defee man looloo ma metti mais mii man doyuma sax gàllax ndi ko wax dof bi kii dafa dof kii dafa ah, wér. ko wax dof la ndax bu la fiy dóor man sama yoon du ci de ay xëy xam nag du jeex de. bu ko wut sax ci mbiru xeex kooku du faat ki ko nekk ah, dama lay wax rek ño dekkal si jàmm waaw ah. maa ci lan nga nekk. papa maa ngi nii rek. Hmm? toog ma yow daal comme d'habitude nii. Hmm? Ah. loolu papa du si man de. ci man la kon. waxuma dara. <laughs> Euh, dama bëgg ñu waxtaan tuuti ndax am na lu fi romboon ma gis sa position waaw mu ci jabaru bu jële waxoo ma ko mais maa la jur gis naa ko ci sa kanam sikk nga ma waaw lu ne wax ngeen ma ko mais toujours man daal man may weex dunq waaw naa ko nangu nag comme maay seen kilifa. waaye boo xamoon li may dox ci yow day kon di nga ni pour yow dama laa banee démb rek laa togg monsieur Ndoye Foire di ko wax ne xarit day jàng na ba yor ay lijaasam mi ngi nii mu ni ma man dimbalaate rek laa fi nekk surtout ñi jàng ba pare moom loolu lay xeex ñi yor métier ñi yor diplôme monsieur Ndoye waaw ñu am rendez waaw ma ne ko amul problème dinaa copier dina copier dossier jox ma la beneen bi mooy lii xew ci kër gi nii waaw mu ñëw ci yëg nga ko mu dellu na dikk na mi ngi sa ak sëy si na waaw may bañ nag nga ñëw yenati ma lépp waaw ni sama papa walla nangam sangam waaw ndigal la man ma jëfee ndigal la dellu si na ci kër gi waaw loolu daal laay am lu may wax dégg nga mhm. li nga wax dégg naa ko bu baax mhm. te tamit su ma sañoo. Mm-hmm. doo wax mukk ñu ciy teg baat. Ah, daawoo ko def de dama doom yi yëpp am na ay doom mais dama laa gërëm foo taxawaalu woo de te am nga jom am nga jom yaa ngi wut jaay sa jaayantu yoo xam di faj say soxla waaw loolu moom dama la koy sant ah moom dama la koy sant. maa ngi lay bu baax ci li nga wax. Mm-hmm. waaye tamit papa danga ñoo njabootee ba pare te jàppale ah bon ndax buum yi boo ko juree mu nekk suñu taaw tey jii nii moom moo la war a wuuti ci lu bari waaye papa dimbali woo ah ndax bu situation yi mu nekkee nii nga jël ko di ko ci dolli leneen tey moom danga ko waroon doy misaal papa ñeenti jabar nga yor. te gis nga li ngay daj. rawatina buum yi nga xam ne day xale. nekk ci yoonam papa war nga di dem di wax ak sëriñu buum. ba mu koy delloo ak umu te gis nga situation ni mu demee mu ngi lijjanti ñaari jabaram pareegul nga dollil ko ci leneen papa bu ndaw la tey jii ni boo ko jàppalee bu kañ la nar a tekki lan lay réaliser. bu il est DG maintenant kañ te kañ tey ban tekki moo amaat. nekk DG te amoo xel mu dal doo réaliser dara. xelam dalul nii. bu yoroon doom tey jii nii moom fu mu jëm. pap dimbali woo ñu man moom sama kaa dama ko jëlale pap mhm. ndax lu mu bon bon bon suñu boroom dimbali na ma ba may jàpp si dara di ci am as di ko def ci sama bopp. jàmbaar nga moom waaw. Mhm. mais aw mii. Mhm. papa tey awa ñoo ko mag. waaw. dafa doon rafet jaadu léeg sax même bu fekkente ni ñàkk ko sax nga ne ko awa kañ dem ñu ànd ngeen génn yóbbu ko mu lekk glace féexal xolam mu xam ni kat que ni papaam jege na ko waaye dara. ñun amour bi ñu waroon am mu jóge ci yow ñëw ci ñun defoo ko si ñun te papa loolu rafetul benn yoon. Khady d'accord euh, pour yéen dama leen abandonné xale yu jigéenu léegi xëy na danga koo jël denc ci sa poset waaye ñoom ànd ak seen far walla ànd ak beneen xale bu góor moo leen gënal ànd ak seen papa sax doxal. ñoom loolu moo leen gënal eh, eh, eh, moo leen gënal su rawatina awa ànd ak faram dem toog ca glace ga lekk glace moo gën a àndal papaam wala leneen ci yaay lépp nag yaayam moo ko ci yar waaye yéen moom nu ngeen mel seen yaay la waaw ñoom la xam nga maaye man du ma ne kenn force ñëwul ñu ànd waaye yéen bu ma deful noonu nga kenn jege si na baayam ni ko papa kaay wala ni naa ndax loolu am na ah. papa li xale jigéen di def. Ah. waaye jur amaana moom moo ko waroon def. léeg nga gis xale bu jigéen boo xam ni dina dem di wut dara ci góor ki te xale góor yi kat mayew ñu dara ngir dara duñ ne kenn jëlal lii te yàlla rek tax defuñu ko benn yoon waaye li war waajur bu ko deful ci doomam. Hmm. moo waral muy demee neen la. di ko wuti ci xale góor donte seen bonte la waaye am ngeen ci part de responsabilité moo tax aw bul xool ni ànd na kii wala àndut ak li la war ci moom danga koy def. Eh, man daal xam naa ci lenn bërëb bi moom mën a gula jee xam naa ni comme yow daal ni nga ko bëgg yàkkeek man hmm? lu danga maa woo loolu rek ci sa silence beeg sa denc yi boo ñëwee dajji sa paquet ni ma ko xëpp lépp mën a dinaa la wuy ci loolu dinaa la wuy ci loolu dama la doon xamal rek ndax man umu ku may tàggu umu ku may tàggu ci ndegam sa yaay laa tàgg tàggu waxantuma ak yow dama la doon wax rek pour nga xam fooy positionné ndax man ku ma mereeg kër ngi yëpp man maay seen kilifa sama yoon newu ci je me fiche voilà noonu la demee. papa situation bi aw ma position bu ma siy jël. Ah. dafa di dafa rafet ñun ñu génne li nekk suñu xol wax la ko. waaw mais génne seen xol ba ci lan di ko xëpp seen baay ay ci amul problème situation bi du man de yàlla la ak kilifa waaw li ma wax sa yaay nag sëy bi moom bu leen neexul. dem leen rek wax sëriñ bi ko bi ko delloo du man de da ngeen a ay sëriñ baa ngoog. ci intérêt. man mii ah. ah, intérêt xanaa sama doom sëy si. Ah, moom jullit na nag am na droit quatre doo def dara si dara de loolu moom leer na ma. waaw baax na ok jeex na kenn newu fi. waa Thiam. waaw. ci la. ah kenn newu fi dafa ni selaw. xanaa gisoo ñoom assuñu ñoom assuñu ñu def fële. ñu ñu bronzé. non man dama ñor a dugg ci biir néeg man moom sëñ man seen wax yooyu man. néew ma si lii nag wóorul di ndax ma saag bi fi teg lu ne. ma lañ teg fu ne. fii. léegi nag après. non état bi nga tool ak période bi nga tool rek moo tax. période bi man problème jàmm jàmm dong laa ràcc fi mu toll nii néew ma fi di expliquer dara. moo tax ma ne jàmm laa woote. ak ambiance. maa la ko offrir. déjà foo jëlee kii. waaye mera bi nga naan fu ma ko jël ca boutique ba jënd ko offrir la ko. Ndeye bi. Thiam dama ko jël la woon. mera bi. waaw. moom laay jël matin midi soir. moom ngay dindi moom laay utiliser. use. xam naa. mera hmm. bi li muy faj xam naa ko bu baax xam naa ni may def man. yow mi waaw bu baax. léegi damaa bëgg nga doole cere yokk neex. lii yëpp fi mu toll nii macha allah xam nga nii nii yaa ngi génne odeur. musuma xam ne mera bi nga utilisé. non seulement que mera bi lay utilisé. Mm. mais dafa am beneen affaire bu ne ci mera bi. Ndeye Ndiaye Ndeye Ndiaye est-ce que mera bi jëloo ko sama boutique ba. sama boutique est-ce que daaneelu ma yow. <laughs> ma ne ko lii comme guerre. cam gis na ci li nga ne. Ndeye Ndiaye ba may mujjee jënd marchandise. kii ay paquet laa ci jënd kii. waaw waaw. ay kees laa ci jënd. waaw. desoon na fa trois ou quatre pièces. Ah. ba may def inventaire gisuma mera. léegi. <laughs> mais est-ce que jëloo woon mera bi di ko jaay ci suuf. am say caméra de surveillance. du ah. yow lu waay def nga gis ko kañ. d'accord j'ai compris kon bu daa moo sàcc samay mera jox la ko nga koy. yaa si moom moom la. waaw tey ngaa dama laa may ci xol seet bi doo nangu rek. te bañ ma ci wax dara. non jël naa mera kii sama yëf maa ko moom. kii moom laay utiliser matin ah, midi soir ah nag yow doon ko moom de dëkk bi yëpp ko moom ndax meeraa ba mu fi ñëwee ba léegi kenn mu ni nii ah déedéet hmm. loolu moom waxaale wu ma ko moom wax kenn nii moom jañ na fi yàgg na fi ah, na jërëjëf maa ko may la ci dara laaj ma la ci dara merci Ndeye laaj ma hmm. nañoo xul jubóo ma ak man de mu toll nii moom problème mille francs laa am Ndeye te ma laa delloo meeraa ah. waa Oumou tey nag damaa ñëw uniquement pour présenter la sama copain bi <laughs> Tata. waaw ah. Tata mooy sama jabaru mag bi ma la doon wax Oumou. ah Oumou. Oumou ça va. ça va yàlla am nga jàmm. naa ne la kii moom sama lépp la. ndeysaan sama xarit la ma sa doon. ndeysaan xëy na nag seytaane duggoon na ci kër gi ba mën ko mais. waaw yàlla nit ku baax la. ndeysaan ma bëggoon na nga jàppal ma ko bu baax. incha allah. kii mooy Tata. waaw mooy Tata awa de moom. sama rakk la sama njëkke la waaw waaw moom même bu sama xarit la <laughs> moom moom baax ni ko gisee amul benn problème dama bëgg comprendre ma mm. dëgg yàlla man moo mën a am problème man ñëpp koy wax ñëpp ñëpp ñoo naa am problème aw moom dafa baax macha allah dafa baax yaa gën a baax doon moo sa naan ma boo ñëwee xam problème jaxal ma non non loolu grave problème ma ngi noonu nag ah euh, léegi tata yaa ngi doon fàttali dëj bi ma la doon wax noonu mooy jëkkëru bàjjen bi. waaw waaw waaw waaw. moo jur umu mi mooy doomam. ah mooy mooy jur kii waaw xam nga dama la doon wax pour nga jox ma xaalis pour ma jaxal ko waaw waaw doon dama see sax rus ba tey jaxalu ma ko moog bàjjal ndeysaan dama ñëw na ko doon na ma ne ko garaawul moom sama rakk la ah, sama ni may joxee noonu laa ko war a joxee ah, jàpp ko nag ah, boo ko amee moom am nga soxna moom macha allah ku baax nag bu baax boo ko amee am nga soxna <laughs> jàpp ko bu baax teraanga moom teraanga rek ku baax la dafa yaru ndeysaan ku baax oh, la nag dafa yaru ndeysaan ak kuy ki ki aw moom moom moom nga woon a wax moo bëggoon soode soode soode soode kii ah moom moo moo nekk bëggoon soode kii bu ah ki aseele la kii ki aseele la ah yow. awa. na nga yàq sama der ci kii nii. non non billahi yàqu ma sa der yow yow. kii kii day day maa waxal dara ci kii yow tamit. du demeewul noonu sax de kii moo mën a nettali rek yow yow da ngaa mës a dégg rek ma ne la umu mi laa lay wax. Eh, bañ demee Sali ñax oh, ay bàjjen na kii da ngaa jaawale munoo bàyyi jaxase ay nit. ah nekkul man la dama ndax man la waxoon. dafa am ndax ku roose ku bëggoon a roose. ku bëggoon a ah, ah, ah, eh, eh. fii waaw waxal. moom bu ko déglu la mel chaque jour ma koo bàyyi ci lii chaque jour def naa ko ndax. xaw laa wax dara ci man. ah mais ma lay a gis. billaahi. dama laa nuru kuy soodewaate. yow. eh looy def nga yónnu noonu mel ni kuy séntu lu bon. pourtant eh! ñàkk xam sa bopp moo tax nga diree ko ba fii naan tetaal nga tudd. amul waaw aw nag moom yow aw moom danga wàcc avion daan ci saret yow yaakaar naa boo génnee ci lële te jeex-jeex di fi indi lu mature lii di wax di mel ni xale man ba mu duggee ba tey c'est bon moo may xeeñ xaw ma sangu na xaw ma sanguwul c'est bu ñuy def soble moo may xeeñ est-ce que defoo sa suuf mbaxane bi sax defak sa aaroot ak maaroto yi nga dajale naan dangay doxaan si te munoo sax wax. kenn dalaa rawul lii la ma fi jar nettali yow yaa nettali ci boppam sa jën bu furi boobu. eh mm, yow tamit bu ko ci xas. nga ne waaw mu ngi daal ma laaj la na yërëm naa ko asu lim say ci kër gii. waaye doo wax si li muy wax nga asu kii nga xam ne ba mu toogee ba tey xetu soble mooy gille xaw ma ci tànk mi la ne xaw ma ci maxanem bi xaw ma ci poose mi la ko dugal. yowee eh, soxla sax. ah, ah awa xam nga yow nag xamoo wax ju sedd. am na parfum yu xadi di jaay xadi mu ndaw yu muy jaay dimbali ko ci. xam nga ñuy wax déglu. yëpp sëcc na ak soble li lan la. yow man maa ko def yow moom xool naa ba xool waaye man jàppoon naa ne changé nga waaye yow changé wu. sa sa xarit bi nii la ki ki yàlla jàpp ko. di nga di nga jaawale xarit ak jabaru mag kii sama jabaru mag la du sama xarit yow la moo tax yow nga mën a nettali man damaa war a yuuxu Sénégal ñëw wala ma lan laa war a def yow mënoo bàyyi nettali. waaw boo yuuxoo Sénégal ñëw lu ñu fi def waa Sénégal lu ñu def fi mi aw kii kii kii kii kii kii moom waare waare waare bu ko sàng sutura moom moo a soode bu baax waaw waaw wala déet. juuga juuga ñibbi. ah juuga nga ñibbi laa la wax jugal génn suñu kër. yaa ngi tàng de awa eh, nga génn suñu kër dawal bi nga doon yow moom bu ma yow bu ma jógee ci say mbir sa yaada bañoon nga ñu koo dégg mënuma koo ñàkk dégg nag yow la ma dénk waaye yow xul wàlla yow baax na rek nag ah, <laughs> lu xew loo may may jaamu du wongo ak salaam ah, tey dama laa ñëw pour jox la cadeau jëm xam sama xarit nga nag karawaat xam nga ko sax déjà mu yéen jàppal gënal defar teint bi. wuy ma bu ma ko gëjee diwoo ba balaa gëj a xees gisoo fan yi sama teint bi ni mu yàqu. loolu laa ah? ma indil la ko. man xam naa nag sama rak nga bonee si man nag. sama doom ji fi mu toll dootuma bonante ci yow ndax karawaayit bi nga ma jox ma raxasaat sama yaram bi ba mu belli. bul soxal na bu teint bi setee rek neel maa fay. waaw waaw mu problème tey dinaa la neexal. <laughs> bandi nga nag cën. waa léegi sama delloo ah, damay baab rek xet gi ci nekk neex gi mu neex boo ko diwoo aajawul parfum sa yaram bi tax ban liis delluwaat nekk jeune xanaa maa maa bëgg karawaay jëm karawaay euh, yaa ngi may woo xew. waaye itam lan moo tax respecté boo heure yow mën nga à chaque instant bu ma la wooyee. il faut ma xaar mais embouteillage bi moo ma téye. lan moo xew man daal boo bëggee dégg-dëgg. Hmm. man instant bi man je suis dévastée xamatuma man sur quel pied danser dama problème yi dafa bari sama bopp. lan la. lan moo xew. yow woowuma la woon fii. Hmm. expliqué la ne la bu newoon naa ko damay jël appartement. waaw pour maak moom kese bu ayee si man mu ñëw fa quoi. waaw ñu mën a gérer dund li ñuy dund tranquille si bu ne bu génnee kër gi waa kër gi dañ koy gisee nangam ak nangam loolu du ko mën a def. Hmm. ma boole li ma neex ak li ma naqadi toog ci biir kër gi dama lay laaj loolu rek dafa metti ci xol. est-ce que xam nga bu tey lan la ma def. Hmm. lan la la def yow gaawee ma lan la bu def. cousine imagine aawam ba. mooy ki mu tàqaliku woon borom rasta yi dof bi. ah ok waaw waaw waaw. imagine toi bu moom la takk teg ko sama kaw man fi mu nekk nii moom dama ni woon damay bàyyi mu sedd mais man mariage yi mënatuma ci toog. taxawal tegal loolu ci suuf foo jinne jàpp la yow sunu famille gisoo koy daw ndax wujj mais bu indee ñetteelam na ñëw nan fekk si si biir kër gi. nga ni nan la fekk ci si biir kër gi. mais yow lan mooy sa problème looy looy ragal ci wujje lan ngay ragal ci wujje benn nañ waxante dëgg na ñëw bu ñëwee nga accueillir ko lan mooy problème bi. yow nag maa xamee ragal. looloo ma jaaxal. man bu ma ragaloon dinaa buuxante ba dugg mais man ki boo takk kooku laa mënul supporter mënuma ci moom lu toy na tarfatal ay ni mënuma ko ci moom parce que kii wérul dof la. léegi lan nga décidé. man damay dem parce que xool naa ba xool mais situation bi man. teel demoo fenn fii ngay toog bu ñëwee nga jàmmaarloog moom tu es majeur et vacciné bougé woo centimètre na ñëw nga ak accueillir ko comme ni la Fatou ak accueillir lan ngay daw lan ngay daw di wàcce sa bopp gis nga boo def def la ba sa wujj génne la fi dañ naan sa wujj moo tax nga génn bu defu la waxu la am na droit am quatre femmes. xam nga comme problème bi nga bëgg indi mooy. waaw yow xam nga ni man je ne suis pas violente du tout te kii dafay dóore di soodewaate yore ay paakaak yu kenn xamul. kii foo ko fekk mi ngi doxantoo ak arme. ak lu mën a am nga toog gérer sa sëy mais yow yaa gisoon bu bëgg ko dugg ci moom. loolu la yàlla dogal parce que yow yow xam nga ni man ñi ma toppoon. dëgg la gis nga list bi amoon. Mhm. ñi ëpp classe bu fuuf. dëgg la ëpp ko xaalis. dëgg la ëpp ko situation. dëgg la ëpp ko tuur. dëgg la mais man yàlla def na ne yow xam nga ni depuis toute petite ba may xale ba tey man sama xol bu moo ko moom. xam naa loolu. donc ma xeex ba fexe ba dugg. Mhm. mais aussi yow pour te dire man lune dem miel sax dew ma ko. mais loolu yëpp mën nga naxante ba am li nga bëgg man man consommé gu ma sama mariage bu dem takkal ma troisième femme. ba am li nga bëgg ci sa jëkkër. na du lépp xët-xët nga koy nga koy fajee yow kii dalaa tiital kii dangay moom xool nga sa bopp mais yow kii tegawoo doyawoo ko tegu tegukaay tànk sax ñoom ñaar ñëpp war na leen ne fii yow la bu bëgg loolu yow yaa koy liggéey yaa koy liggéey ba moom sa jëkkër bu lijjanti kenn toppatool sa jëkkër te yow sax femme d'affaires nga yaa ngi ak sa xaalis te waa kër gi dañoo bëgg xaalis. xoolal bu ma tuddal wax waa déglu ma fii. bu ma waxal waa kër yow jëlal sa xaalis jënd leen ñoom ñëpp sa goro bu góor xaalis lay wër sa goro bu góor ngay jënd boo ko jëndee loo bëgg si bu am ko lii daal laa lay digal. xoolal comme déglu ma man bul ma wax waxu waa kër gi ndax gis nga. Hmm. buu dafa àndandoog waa kër gi ñu def coalition ñoom lii yëpp yëg nañ ko. xaalis bii ngay wax commencé woon naa ko amul lu ma leen joxul amul teraanga bu ma séqul ak ñoom ci biir kër gi hmm. mais tey ñoom ñoo retourné contre moi léegi lan nga bëgg ma def ñoom ñëpp laa jël paquet ñoom ak buuw ak ñëpp laa jël paquet multiplier leen par zéro xoolal bàyyi rek ma jël sama décision ma dem moo gën quoi parce que man situation bi mënatuma ko bul def loolu toogal nga gérer sa sëy tey jii boo fi gee it dañ naan sa wujj moo tax nga daw tey Fatou ne gën na la tamit bi nga ñëwee Fatou Kiné dafa bougé yotaa mi ngi toog gérer sëyam kon yow bu ñu lay indi lay wujj yow toogal gérer sa sëy wan ne ragaloo mais loolu mooy affaire bi bougé woo de bel bougé woo centimètre fii ngay toog sëy ba dee ndax ñun sëy la ñu xam bougé woo centimètre na ñëw kan si sax mooy borom ra sayee yow kooku looy ragal ci moom yow kooku la kooku dalaa fëkk gis nga sa bopp bel arrêté wax ma leneen na ñëw nga sëy sëy bi ba mu neex. lii de laa la wax man. man kum jaaxal nga ma. ah mais lii moo fi am sama yaay xam nga ne bu fi ñëwoon lii la lay xelal man du ma la far ci lu dul dëgg toogal daal nga sëy sa sëy man lii laa la wax waaw kay boo may mere nga mere ma.